la République ak palais de la République mu résidence du président de la République bi nga xam ne moo demeuré sori situé dans le quartier Dakar Plateau capitale du Sénégal construit en 1902 wi soxna palais bi xaw naa yàgg tuuti mu doon la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF Léopold Sédar Senghor Diatta 1960 80 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2000 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam ñamaat ñu xaaral ni ba xam kii woote ba ko jot président de la République kooku kan la war a doon ak fan lay woote salaamaaleykum kooku allo salaamaaleykum maaleykum salaam kooku eh sëñ bi na nga def kam noonu maa ngi sant ba joxal sa fii yaakaar naa ni campagne laay woote wala kam. man joxal sa tur ak sa sant fi ngay woote. maanaam laaj Samba Lolo ja Samba. Lolo Dia. di wootee fan. maa ngi woote fii ci Lompoul kay. ci Lompoul. eh kam. alaaj Samba la sa woote ci biir palais ci waxtu wi nu toll nii. ah jërëjëf kay ba ma wootee mu dugg palais alhamdulilah. lu waral sa woote. eh mun naa sol. Macky mënoo koo jot dafa jàpp. Eh, wala day sangu. loolu lépp sa yoon nekku ci yow waxal li nga war a wax. ee eh, ka mun naa la yubbante ci moom ka déggoo li ma la wax xanaa boo amee lay wax doo ko wax man ay kay laaj ayul ah, kay noon kay bañ naa man ubbil la ne ndax daa am looy wax wala amoo looy wax boo amee looy wax boo amul looy wax ma eh, kam nag nga deret de waa léegi bu ñëwee waaw nee kay li fii kay gul de lii lan lii kenc tabaski gi nekkagul de. waaw léegi loolu ci man maa ngi dakkee su may kar jóge fële ci lompul kay boobu yegg si fii Ndakaaru waaye boobu léegi maa ngi koy yeew maa ngi jën ngooñ di leen jox rakkal di dundal te amul kenn koo xamante ne ñëw na takka fii ni ñaata waaye ey eh, kam kenn ku takka. daal ma. yaw léegi yaa ngi yor say xar di jaay léegi kii gisoo ku ne la ñaata léegi loolu nga bëgg du luñ président lam ci mën yaa bëgg léegi président ñëw naan la nit ñi génn leen ngeen dem jëndee xar ba luluy yaa bon na kay noonu yow bu ñu waakul ak a waak moom mu yor kaalis bi moom mu yor caabi kaalis bi kam ku ñu waakal kay noonu léegi yow xar ñaata ngay jaay man karaan naa ñaar fukki junne ak juróom benn ka ka juróom benn fukki junne kay noonu saarut kay li may jaay yow xam nga wuyu ma wuyu ma yaa ngi may dégg eh? yow doo jaay waaye sax lu du ma sotte ko yow nan ngay man kari der wa sogor nga ma ndur kay no dama déglu ma déglu ma ma lay wax bu la président boo jotoon président loolu lay tontu eh, jamono bi fi mu toll dama ne ko da nga sogor yaa ndax lan may dégg fali ngay jaay kam ci dama ni la eh dëkk bi fi mu toll eh? yéen jaaykat yi jula yi da a war a wàññi xale yi yombal ko ndax askan wi yoruñu xaalis eh, dégg nga moo waaye dama ne kam noonu dëgg fi mu munti toll kam ñun ni ñu war a yare lan koy yare kana duñu jëndee juróom jaaye jaay ñetti dërëm loolu duñ ko def xayma xanaa bëggu leen njaay mu gaaw bu dee njaay mu jaay bu ñu buggee mu gaaw dañuy jëndee téeméer jaay juróom man ni da ngay jël tay teg ca suba yow mii ku la topp da nga naan ci suuf da ngay daanu yow noo sant sax xëy noo xaw ma ko déet wax ma rek noo sant xaw ma nu ma sant déet waxal rek woo ko wax de yow rek Sénégal nga sax déedéet man pour ñu gis naa donc yi kay waroo toog biir pal bi. ba léegi wuyu ma. eh daa am am leneen looy wax wala. nga waa kay noon président ak ñëwee kay ni nga ko wakkal nee ko ñun kay kaar yi ñu ngi andi dér boobu léegi dara dokkul su fekkee mun na cee jàpp na konoon mu génne kaalis bi jóg gaa ñu teel a jënd kay doon donc ñu ngi bugg dee kay. waaw wuyu ma léegi xam nga nooy def. eh votre correspondant peut-être suñu problème ma. ba yàgg leen mooy fu maanaam ci wolof mooy coupé naa la coupé. ah coupé coupé comme dekkal.